monsieur le ministre du développement communautaire maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu monsieur le ministre du travail di nuyu directeur général di budget maa ngi nuyu say collaborateurs yëpp di nuyu samay collègues monsieur le ministre maa ngi lay félicité bu baax ci confiance bi président de la république am ci yow ba tax mu jox la ministère bu am solo bii mu nekk ministère boo xam ne jàpp naa ne dafa ëmb Sénégal kon li tax mu jox la ko sa liggéey ak sa engagement moo tax mu jox la ko monsieur le ministre bi nga ci toogee yàggul mais vraiment gis nañ jéego yi am solo yi nga ci def parce que da nga ubbi sa buntu boole ñëpp dem région bu nekk woo ñëpp kon loolu dineen la ci félicité di la ci encouragé di la wax ne la vraiment dineen la soutenir ci liggéey bu am solo boobu monsieur le ministre président Macky Sall ñu koy félicité bu baax ci programme yi am solo yu mu indi bu ci mel ni PIDC PUMA Promoville ak euh, CEMI ak délégation euh, bourse de sécurité familiale. monsieur le ministre phase phase euh, un bu PIDC dafa liggéey liggéey bu am solo ci réew mi monsieur le ministre moo tax dineen voté sa budget bi tey bu ñu koy xayma def na 1018 villages yoo xam ne am na ndox bu set def 3786 ay matériels yoo xam ne ci mbay la jëm ak càmm def dix 618 kilomètres yoo xam ne piste la mais defaat 20 cent yoo xamante ni courant la ci àll bi moo tax monsieur le ministre phase 2 bi ñi gis nañ ci suñu phase 1 bi gis nañ ci suñu bopp te réew mi aussi monde rural bi yëpp gis nañ ci seen bopp moo tax ñi lay fàttali phase 2 bi bul fàtte waa département bu Koungheul parce que am na lu am solo lu ngeen fa jot réaliser mais am na lu des moo tax ñi lay fàttalil fu ci mel ni piste lourd escale bi ak yoonu Arafa Missira monsieur le ministre monsieur le ministre beneen bi muy Puma Koungheul dafa frontière ak Gambie tey am dëkk yoo xamante ni réseau sax duñu ko am pour téléphoner ñu waxoon ñu ne Puma dina ñëw foofu ci département bu Koungheul mais depuis boobu léegi ñu ngi leen di xaar pour ñu leen di fàttali parce que am na genre dëkk yoo xam ne monsieur le ministre tey amaguñu dara te bëgg nañu aussi ñu yëg seen bopp ci ci réew mi monsieur le fu mel ni màkk guy foofu boo fa nekkee doo am réseau sax pour woote téléphone ak xusnaan ak ndrame Dramé Salimou amul poste de santé amul yoon amul ndox moo tax foofu bëggoon nañ ngeen jàppale ñu ci programme mu PIMA bi monsieur le ministre beneen bi Promoville Koungheul ñaari tali la am ñu ne woon Promoville dinañ ñëw Koungheul pour dolliwaat ay tali ba vraiment askan bi yëpp kontaan ci loolu moom aussi dañ leen di fàttali ci Promoville monsieur le ministre ñu gërëm président Macky bu baax ci bourse de sécurité familial parce que tey nag wax dëgg yàlla boo demee ba Saalum di nga xam ne loolu am na fa njëriñ. moo tax ñu ngi leen di ñaan aussi bourse de sécurité familial su ngeen ko mënee gën a yaatal ba Koungheul gën cee gis seen bopp beneen bi monsieur le ministre mooy seemi seemi bi nga xamante ni aussi tout tànk yi dañ ci dañ ciy bénéficié wu monsieur le ministre may sant Cheikh Diop bu baax bu PIDC di sant tonton Serigne Sène ak euh, sa Anta Sarr ministre maa ngi nuy sa cabinet yëpp jërëjëf bourse de sécurité familiale seemi vous gérez plus de 1000 milliards, pratiquement le quart du budget du Sénégal. Je ne sais pas d'ailleurs si je dois continuer à vous appeler monsieur le ministre ou bien le ministre triple XL ou bien vice-président du Sénégal. Dites-moi, la dénomination bi nga bëgg ma tuddee ma tuddee la li may njëkkee mooy les doléances que j'ai reçues hier parce que démb maa ngi woon à Rissou dans la commune de Koul dans le département de Tivaouane ñu may xamal ni sur villages il y a pratiquement zéro kilomètre de route goudronnée et moins de 20 villages électrifiés mais aussi foofu ñi nga xam ne ñoo nekk commune de Ndane Diouf fekk na ma fa pour dire la même chose commune de Ndiago je vais pas revenir sur les chiffres mais tout à l'heure may woo alors que foofu c'est dans le département de Fatick fi nga xam ni fa le président de la République Macky Sall c'est la même chose qui est fondamentalement notée damay tënk li nga yor parce que il faut Sénégalais yi xam ko parce que li ci ëpp c'est dans le monde rural boo dee xool xayma ci 15 millions de Sénégalais yi ay 8 millions 500 mille Sénégalais la pratiquement sur kilomètres carrés bu fekkee on prend un taux d'urbanisation de 46 pour cent li muy tekki mooy xale bu fa yoonu tey am des difficultés pour mener guddi gi mu jàng am les mêmes chances de réussite que xale bu nekk Dakar Yawa li muy tekki aussi mooy jigéen bi nga xam ne am na des difficultés pour mën a ci case de santé ñu war ko transporter ay par une ambulance di ko transporter ak ay charrette te bale na même ici à Dakar Yawé également li ñuy tekki mooy góorgóorlu bu fay yeewu waaye mën a dem ci dëkk bi am ay piste yi xam ne amul fu mu jaar mënu ko parce que piste yooyu existé wul Yawé également li muy mën a tekki sans économie dans ces parce que n'y a pas de marché pour mën a écouler les marchandises yi Yawé mais Je ne vais pas parler de programme par programme parce que le temps ne le permet pas. Mais je pense qu'une autre orientation, agréger ces programmes-là, pour voir les infrastructures de base, de la famille, pour que village bu nekk soxla na ko pour régler justement problème d'inéquité boobu agrégation boobu ça va être beaucoup plus pertinent parce que les infrastructures sociales de base tout le monde les connaît ku nekk fa ngay yeewoo soxla nga ndox soxla nga électricité soxla nga marché soxla nga poste de de villages qui en disposent aujourd'hui le nombre de mais quand vous avancez les chiffres 618 kilomètres de route construite des pistes construites construites construites construites

et du régler les problèmes tels que ñu ko population yi doon xaaree foofu alors que sur un rayon de cinq kilomètres on pouvait dire que ces villages pouvaient se partager tel poste de santé pouvait se partager telle école pouvait se partager tel donc marché et voir pour reste l'électricité et l'eau en fait un horizon pour que nous ayons un accès universel monsieur le ministre je pense que l'accès universel à l'eau et à l'électricité projet dans on doit faire alerte sur ça et le régler parce que dafa doon un minimum bi nga xam ne tey jii nii quel Sénégalais ak fu mu nekk war disposer et je pense qu'avec le ministre triple XXL que nous avons le vice-président ce sont des problèmes qui seront réglés espérant que déwén boo dee ñëw fii daa ma wax le nombre de villages dans cette situation je vous remercie. monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu la ñaanal. yan bi diis na yal na yàlla téeñ la yàgg sa équipe te xam naa ne kuy xool say qualité xam ne lu la dénk attan nga ko te lu tax ma wax ko itam danga ngaa fan nga prouver prouver nga ci ndox mi prouver nga ci leneen Sénégal tey booy xool ci wàllu ndox def nga ci lu am solo kon tey bu ñu la dénkee lu toll nii ñun dañuy am satisfaction ànd ci ak yow sant la gërëm la monsieur le ministre boo xoolee ci àll bi àll bi nga xamante ne président Macky sal war na ko ba xam li nga xamante ne mooy soxla askan wi am naa yaakaar ne boo toogee ndakaaru gi di naan àll bi jotuñu gis ñu sa bopp seen ministère loolu am naa yaakaar ne yow yaa ngi nax sa bopp wala xamoo lu àll bi wax ndax àll bi lu mu wax mooy da ngeen faa liggéey ba élection bu mu jotee bàcc yi nga xam ne bàcc Macky Sall mu ngi ko doon dóor bàcc yi foofu la gën a nooyee àll bi la gën a nooyee bu nu waxantee dëgg àll bi li ngeen fa am ci résultat amul leen ko fenn ci budul àll bi xamul la ko war a PUDC bi ngeen yor lu ko yoroon mooy yoon yi nga xamante ne nii nit ñaa ngi dem ci luuma yi di demante di ñëw boo demee tey dans le département de Mbour PUDC mu nga fa mais ñu ne fépp mat na mais boo xoolee jógee Fissel Mbadane ñam nanu soo jegee fii CSM ñam nanu Joal ñam nanu Guéniène Guéniène Ndiaga ñaaw nga ñëw Sinj commune de Sinja nga ñëw jas nga ñëw Guéréo ñëw Popenguine ñëw ndaayaan nga dem zone Dior monsieur le ministre xamul ma lay ñaan diggante Ngekoox ba taset te damay ñaan suñu mbokki député yi ñi nga xam ne ñoo bokk ak Sall di liggéey gis nañu liggéey Macky Sall waxuñu sax bu ñu wax doléance mais nanu wax lu baaxu Macky Sall ba noppi doog a monsieur ministre dolli ñu dolli ñu boobu ci la ñu nekk ñun amul kenn ku ñamul teraanga Macky Sall si sëb dëkk amul fii ci dëkk fii ci ci département bi amul ci Sénégal kon nag ku ñam ci teraanga Macky Sall boo ñëwee fii monsieur le ministre xam ne loolu merci d' abord abord ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm gis nañu teraanga Macky Sall def suñu suñu gox yi suñu gox goxaan kon monsieur le ministre jërëjëf bi ma lay wax tali bi nga xam ne moo jëm Tassette dëkk yi fa nekk su ma la ko limaloon bari na mais damay ñaan PUDC mu ñëw fa ndax boo jógee ngexoo di nga dem dëkk bi ñuy wax Baabel Combalaj Kër Mbay Jéy dem fi nuy wax Kob Gayaan dem fi ñuy wax Xabbaan dem Kër Njoogu Njaay doog a dugg Taset li fa nekk ci village mat na 40 village loolu ñu ngi lay ñaan tali Taset bi nga xamante ni moo ñëw ba ngeexoo te mu bëri ay dëkk yi nga xam ne ay luuma yu fa nekk ñu ngi lay ñaan nga defaral ñu ko defar nga fa lu bari nag mais ñu ngi lay ñaan dëkk yooyu nga ñëw gën koo jàppale gën koo dooleel bourse familiale bi ñuy wax man gis naa ndaw soo xamante ne nii dafa ne heure bu xëyee nay Macky Sall yal na fi yàggati wér dañ koo jëkk jox vingt cinq mille francs mu dem Mbuur jënd ca géej ak keccax ñëw teg ci marché bi jaay mu ñëw am bénéfice te boo xamee dimbal ask dimbal miskin nu mu baaxee Amérique dimbal miskin moo tax mu nekk numéro un parce que boo demee am na lu ñuy wax food stamp da ngay dem ñu jox la ay ticket yoo xamante ne boo demee ci marché bi am looy lekk boo demee ci boutique am loo lekk jox la transport jox la xaalis sa poche pour nga mën a dund pour nga mën a dimbale sa bopp loolu bu ko suñu président Macky Sall indee fii ci réew mi gis naa am naa yaakaar ne kooku mooy développement amul réew mu lu dimbale miskin amul réew mu lu dimbale seen ay ay néew di dooleem néew ji doole boo xamoon dimbal yokkute bu ci nekk defe naa ne doo toog fii dinaan bourse familiale erreur la déedéet bourse familiale ndam lu réel ci président de la son excellence Macky Sall xalaat boobu cuune du ko def xalaat boobu ku ñàkk xam-xam du ko def xalaat boobu amul xel du ko def maa ngi sant nag sa équipe bi nga àndal ku mel ni suma xarit Aliou Sow nga xamante ne moom mii dafa liggéeyal Sénégal am ay diplôme am jàng ko ba ma gis sama wet sax sa wet sama xel dafa dal dama xamante ne rek gë daa nga réussir sa mission mais di nga gën a réussir sa mission incha allah war a monsieur le ministre ñun député yi pare nañu pour accompagner la ci àll bi dur sa vingt pour nga jot ko c'est pas facile da ngay ñëw ñu def enquête léegi dem ci chef de quartier yi chef de quartier yi def woote ci koñ bi ñu xool néew ju doole ñu tànne leen noonu la bourse familiale di demee erreur nag mënta ñàkk ci liggéey parce que mën ngaa dem ci gouverneur gox boo xam ne yu dugal koo xam ne yooyu woo ko peut mais du yéen a ko def mais seen devoir def ngeen ko mooy leen envoyé ngeen ay nit ci terrain bi nee ngeen ne ki ko pour bourse familiale nii la war a mel mais ku ko def bu amee erreur bi du yéen ña ko def ñoo ngi ci terrain bi ñooñu nag dañ leen war a sanctionné après mais bu nu nee alors que ne bourse familiale dox na dox na à 100 pour cent monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la wax na pare na nañu pour accompagner la maa ngi lay xaar nag ci sama tali bu fële ca ak Taset incha allah rabbi ak yeneen ak yeneen ko salaamaaleykum wa rahmatulah. tàmm bu baax a baax a baax parce que su dee lu ko jarul c'est pas la peine de faire de la provocation ñëw fii bëgg wax nit ñi ne tout va très bien c'est pas vrai c'est pas vrai bërki démb fii. la ñuy wax agriculture mais agriculture de premier janvier 2017 ba 31 août 2018 weer wu ne importé nañu 23 milliards ci ceeb ba pare ñëw fii ñu naan ñu autosuffisance en riz quand même ça c'est des chiffres école bi le ministre va venir demain je crois il y a 2 millions 500 mille jeunes qui ne vont pas à l'école dans ce pays-là. Etc., etc. Euh, monsieur le ministre, euh, département bi bi ma ko xoolee dama xaw a jaaxle parce que quand j'ai lu le rapport c'est comme si j'avais le ministre de la santé le ministre des routes le ministre de l'eau le ministre de l'énergie je crois qu'un de mes prédécesseurs à ce micro l'a évoqué il y a un problème vraiment monsieur le maire si vous pouvez m'expliquer euh, la cohérence de ce schéma-là euh, je serai là je vais pas bouger je vais vous écouter parce que je ne comprends pas alors quand on parle de santé vous donnez des, des, vous faites des cases de santé, des postes de santé, des ambulances médicalisées, etc. Mais où est le ministre de la Santé Alors, l'électricité, j'ai vu des collègues dans le rapport demander de l'électricité, etc. Mais où est le ministre de l'électricité Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de... Mon cher ami, écoute-moi s'il te plaît. Si tu ne veux pas m'écouter, tu sors. C'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ça Bon. S'il vous plaît, euh... chers collègues, laissez-le terminer. le terminer. Je vous en prie, laissez-le terminer. En tout cas, je dis, li ma bëgg a wax fii dinaa ko wax su ngeen ma dégloo dinaa ko wax su ngeen ma déglu dinaa ko wax voilà c'est tout. vous savez il a des j'ai des collègues depuis y avait des des des sénégalais ñu fal leen député ñu ñëw fii dañoo mujj démissionner. dem seen yoon parce que mënuñu fee toog alors que on doit parler des problèmes du pays ici non c'est je vous remercie madame